bisu àjjuma bu tedd bi di ñaan yàlla lépp lu ñu ci def ci lu baax yàlla nañ ko yàlla nangul lépp luñ ci yum ci semaine bi yàlla nañ ko yàlla jéggal yàlla nangul ñu suñu aljuma nangul ñu suñu xadara juma suñu wazifa nangul ñu suñu dokk yeneen yi ñu def yépp bi jaay seydina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tabaarakallahu comme ni ma koy junjee toujours dund jullit bi dafa war a tënku ci di bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa di ko sopp di ko topp di ko roy ko fonk di ko liggéeyal euh, waxoon naa tamit ne Euh, daaw ci gàmmu gu mag gi ma ne euh, gàmmug fonk yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ren dama ne gàmmug gàmmug liggéeyal yonent bi la waaye daaw bi ma laajee lan mooy fonk yonent bi ma ne fonk yonent bi mooy fonk lépp yonent bi mooy fonk fépp yonent bi fonk lépp lu takk ci yonent bi ak fépp takk ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy waxam muy jëfam muy digleem muy tereem muy bàyyeem muy njabootam muy makkaam muy madinaam muy alquraanam muy ay umam mooy xeetam lépp yonent bi da ko fonk pourquoi parce que imam Busayri radiallahu anhu moo ñu wax ne fa huwa alladi tamma ma'nahu wa suuratuhu summa stafahu fi ilmin wala karamin wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min albahri aw rashfan min addiyami fa huwa alladi moom nga wax ji soog ñëw tamma ma'nahu wa suuratuhu summa stawaahu xabiban baari un nasami imaamu Busayri nee anhu nee rasulullah sallallahu alayhi mooy ki nga xamante ni dafa mat baatinam ak zahiram zahiram mat na baatinam mat na nee na bi lii amee nag ci la ko yàlla tànn def ko muy ab soppeem sallallahu alayhi wa léegi nag bi ko yàlla tànnee muy ab soppeem ci matam ci zahiram ak baatinam ci la ko jël nag daal di koy érigé samp ko waaw daal di ne kii nag laa bëgg euh, mu symboliser lépp lu may digle moom ni mu ni mu ko ni mu ko defee laa bëgg ñu defee ko mu wax tamit ne lépp lu may tere tamit ni ko waa ji bàyyee noonu laa bëgg ngeen bàyyee ko ci la déclaré ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun yéen daal seen référence ultime seen royuwaay bi gën a mat ci royuwaay yi mooy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax nag tey ñu bëgg a jàngat nag benn ci mbiru rasulullahi sallallahu alayhi boo xamante ni bariwul luñ koy waxtaane te lu ñuy gis la chaque jour ci jàkk yi ak juma yi wali wala ci bàyyi kaala loolu war nañ ko gëstu loolu moom mooy waxtaanu tey bi ñoo ngi ànd ak nag euh, suñu soppee Thierno Omar Kane xam naa ne namoon ngeen ko waaye fa tabarakallahu euh, dëkk bi dafa xaw a sedd tuuti xat-xat yi xaw a bari loolu moo tax waaye nag incha allah dellu siwaat na du àggale liggéey yi muy def rek dina ñëwaat ñu àggale liggéey bi nga xamante ni moom la ñu bokk mu jëm ci leeral jàngale yàlla ak jàngale sayyidina muhammad salaa sallam ci kam ni ñu toll rek ndax yàlla subhanahu wa taala kenn mënul matal léppam waaye euh, yéene bi ñu am rek ci séddoo ak jaam yi xam-xam yàlla yàlla fay leen fay ñu fay ko fay julit yëpp ñoo ngi ànd ak tamit cheikh euh, abdul rasin li tabarakallahu atijani ci sunu ndeyjoor ci wàllu technique bi mook cerno euh, njóogu mbooj macha allah Tijani ci walu momit assistance technique bi macha allah ñoo ngi ñaan yàlla mu barké ñu suñu jotaay ci barke Seydina Mouhamed ni ñi waxtane kon ma jox Thierno Omar mu nuyo su paré ñu dugg ci waxtane wi directement insha allah taala bismillah Thierno. waaw kay jërëjëf sëñ bi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu mbokk yi ñoo ngi di leen ziar di leen wax ne gëjoon nañ fi lool ni ko sëñ bi waxee rek ay ngant. mu taxoon mu ni woon lii waaye ñu suñu xel ak suñu xol suñu ruux lépp mu ngi ci euh, dañu la woon euh, nag ñoo ngi leen di ziar yéen mbokki safin yëpp képp kuy seetaan euh, safinatu foqra yi doon daal ñëpp ñoo ngi di ziar di leen nuyu di leen ndokkeel di nuyu sëñ bi di ci taxawaayam ci diini lislaam ne yëpp ci liite yitte lislaam la bokk ne yëpp day feddali cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak euh, gaa yu baax ñi ndax tey ku nekk am nga temps ku nekk sa temps tamit am na foo ko def te moom moo ngi jël di ko def ci taxawal yàlla ci mbindeef gi taxawal yonent bi sallallahu alayhi ci njabootam taxawal mag ñu baax ñi seen seen ndono loolu yëpp ñu ngi koy sant yàlla di ñaan yàlla yàlla dëgëral ko yokk taxawaay bi yonent bi sallallahu alayhi di sant di gërëm mbokk yi ñu àndal fii Abdou Racine Ly ak euh, sëñ euh, Ndiogou Mbodj ak euh, mbokk yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant di leen di leen ñaanal yàlla di sàkk si yéen ñaan barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Thierno Omar dafa mel ni xaaj <coughs> Racine xaaj Ndiogou xam naa ni doo leen xoolee kaara yu rafet yi rek war ngeen a xam ni kon am na lu xew mm. kaala gi ci biir kaala gi ci kaw kaala gi nga xamante ni mën naa am soo xoolee sunu kaala ga ci biir am nañ ku muy fàttali ci sëriñ si ndax am na ñuy kaala woo noonu yëf yi daanu ca ginnaaw hmm. nii ma def nii tamit am na ñu muy fàttali ci nitu yàlla yi ndax ñoom it nii lañuy kaala woo am na ñoo xam te ni fii lañ koy teg seen mbagg am kii nag moom kaalaam kenn du ko kenn du ko kenn du ko présenté kenn moy cierno Seydou Nourou Nourou Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu gis nga kon kala rek bala ñuy dugg ci tekteli ci alquran ak sunna kala rek identité la mom lañ wax ci arab huwiya qul huwa allah ahad huwiya donc lek sa kala rek daf lay am fum lay fum lay féetale waaw lolu junj la kon te dinañ ci ñëw legi ci biir waxtaan mu melni kala euh dafa doy war yonent yi alayhimu salaam képp ku jàng seen histoire qisasul anbiya kenn ku ci nekk ci ñoom il faut nga dégg ñu wax ci ñoom kaala wala làmbaay mënul ñàkk ñoom ñépp dañ daan yor kaala dañ daan yor làmbaay làmbaay mooy sër bu mag moom la ñuy isaar moom la moom lañuy ñuy woddoo wala ñu làmboo ko ci kaw wala ñu yor kaala mënul ñàkk yonent yëpp alayhimu salaam moo ko yet yor yet koku tamit dafa bok ci sunna yonenti te dina ci ñew léegi dama ñew ci exemple bi gëna mak ñu gën ko min moy Cheikh Omar al radiyallahu anhu donc yonenti yeb dañ dan yor kala sen sang di sunu sang ñun ñep di sunu soppi moy sidna Muhammad so jangé sira dañ koy romb toujours nak duñ koy waxtaanee so jangé sira dina la jangal ne la yonenti bi sallallahu alayhi Wasallam. kenn mus ko gis ak bop neen soit mbaxana lay sol mom lañu ñuy xelan sawa wala bok mu jël kala tek ci bopam sallallahu alayhi wa sallam kon loolu rek war naa tax ñoo xam ni kon kaala sunna yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy li may wax toujours yonent bi léppam am na solo amul dara ci histoire am lu am mbalit amul mbalit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léppam te doo gisee nit yàlla yi ni ñu fonkee kaala ni ñuy kaalawoo nga war a xam ni kon am na lu am na signification am na taxawaay bu mu am ci diine ñu dem soo xoolee tamit saxaabe yi seen histoire yëpp da nga ciy dégg mbirum kaala yii nag il faut nga lire seen histoire léeg-léeg nag di nga romb waxu kaala ci biir histoire bi te doo ko dégg léeg-léeg nga dégg ñu ne kaala gi dafa daanu ci ginnaaw déggoo même yonent bi salaa salaam euh, am na benn xare taxaw na di ñaan ba kaalaam gi daanu ci suuf ca ginnaaw dégg ngeen yooyu yëpp ay junj la keroog bi muy def dernière xutbaam ca xajatul euh, widaa kaala gu ñuul ak gu weex mu sol gis nga yooyu toujours dañuy wax waxi kaala c'est important wulu yàlla tamit kenn mënoo jàng seen histoire te fekkoo ci kaaba wala yàlla yëpp nit yàlla yëpp il faut nga dégg ñu ne kii day kaala woo kaala gu mel nii wala day kaala woo nii wala kaala nangam wala nangam kaala kiñ ci euh, euh, te loolu euh, kiñ ci gën a xam mooy Cheikh Al Hadj mooy borom yat wa yat wi defoon nii te yat woowu démb junj naa leen ko man leen moo doon dox ca yonent yëpp ba àgg ci naa musa yat woowu ci la doon def kéemaane mi moo dox ba ci loxo Rasulullaay ñëpp xam na ne yonent bi avant muy nekk yonent sax berger la woon daraan sàmm te kuy sàmm il faut nga yor foo nga yor yat yat woowu mooy dox ba ci Cheikh Alhaaji Omar mu yor yat wa yoraale ma te yat woowu euh, la ca laxasu yëpp yaakaar naa Thierno Omar du ñàkk moom mu dimbaluñ ci wax ñu la ca laxasu ci baatin ak euh, la mu la mu àndal moo ngoog euh, seen làmbaay yooyu ñu yor pour lan la woon pour lan la woon xaaj joobu làmbaay yi pour lan la woon kaala gi pour lan la woon mooy fu leen julli fekk ñu lal ko taxaw julli fu leen naaj fekk ñu taxañoo ko ba naaj wa du leen sonal fu leen liggéey fekk ñu mën koo takk seen liggéey seen ndigg liggéey gis ngeen Cerno Ahmed Tidiane euh, Baro am na vidéo fay photo yu ma gis ñu mel mu mel ni kuy kuy liggéey maa ngi gis kaala ga mu defoon ca baatam moom la wàcce rek takk ci ndiggam gis naa photo yi ci internet wali yàlla yi dañuy def loolu Cheikh Al Hadj nag moom lañ ci gën a xam ndax kaalam bu tedd googee daan naka kaalawoo daan na ko tëñ laayoo daan na ko takk ci ci baatam ak waaye tamit du amaan ay bagages ci la koy takk cat lii booleeg cat lii takk cat lii booleeg cat lii daal koy jël roof ko ci bantam bu tedd boobu daal di commencé nag dox yoonam kon kaala saak la kaala jullikaay la kaala protection la kaala liggéeyukaay la kaala tamit dafa am yeneen taxawaay yu mu am ci diine mooy tey jii am na ci réew yu bëri ku mokkal alquran dañ leen di xàmmee ci seen kaala soo demee Algérie soo demee Tunisie soo demee Maroc ñoom dañ leen di xàmmee ci seen kaala kaala gi day tax ñu xam ni kii xaafis la wala du xaafis mbooloo jànkat alquran toogee ñi ñi ci mokkal mën na leen xàmmee ci seen kaala gi ñu gi ñu kaalaw Sénégal doo defee jàng xam-xam jàng alquran bokk jàng xam-xam ba jeexal jàng luxa ak yooyu yëpp ba pare ba def tafsir tukkale di wax tafasir soo paree danaan da lay meete yéen na ngeen di wax sax Thierno kaala noonu ngeen koy waxee. Ah, kaala ngeen di wax. ah fileede fileede mooy meete. wolof wolof pire meete lay wax. waaw ñun dañ naan kaala nañ ko kaala tafsir. fileede lañ koy wax ci pulaar. fileede alpha fileede alpha mu ngokk tey jii duñ lay fal tamit ay cëru diine. ci Fuuta wala ci yenn dëkk yu bari mm. dañuy ñëw def la kaala mm. même ci biir gawlo yi mm. am na cër yoo xamante ni soo koy am dañuy ñëw rek ñu kaala la gis nga kon kaala lu am am solo la lu am doole la euh, dafa dem ba nga xamante ni euh, euh, lépp ci diine dafa am ak relation kaala da nga gis jàkk yu bari dañuy jël kaala teg fa imam bi su amul kaala sax ñu tegal ko kaala gi pourquoi parce que am na yool bu bu julli gi di yokkoo ci euh, takku kaala mook laal parfum ñooyam day yokk julli moo julli tamit euh, ki jiite am soxna ñooyam tuyaaba yi du bokk day yokk tuyaaba yi yooyu yëpp ay sew sew la da ngay gis nag léeg-léeg ñu ko def jàkk yi nga yaakaar ni paa yi ñoom dañuy def lu kenn xamul wala kaala gi dafa rafet ci imam bi déedéet am na yu ñu ciy dabu te loolu xataayu jotaay bi moo tax waaye kon ñu indi leen tegtal yépp ba mu leer nañ kon euh, kaala yaa ngoog ci ci ci yonent yi alayhimu salaam ci sunub yonent sallallahu alayhi wa sallam ci saxaabatul kiram alayhi radiallahu anhum ajmain ci lawliyaa yi nga xamante ne xam nañ leen ci jàngkatu alquraan yi ci jàngalekatu alquraan yi ci ñi mokkal alquraan ci ñi jàng alquraan ba jàng xam-xam ba jeexal ba def tafsir tugalori di wax fii lay de ñun ñuy wax meete wala kaala tafsir ah da naan kaala nañ ko waaw kay am na tarixa yoo xam ne sax suñ lay defal ijaaza suñ lay ñom seexal lañ koy wax mais dañuy jël kaala rek tak sa bop suñ ko takkee rek moy tey jii yow muqaddam nga ijaazaal nan la waaw su ko defee nak kon yoyu ay junj rek la pour wané dool ak doole kaala inshallah ci beneen partie bi lu ceer na jëlé ba paré dinañ dem pour wax leen signification euh couleur bu verte bi hein ndax nit ñaa ngi kaalaw kaala yu verte te xamuñu lu muy junj couleur bu weex bi ak couleur bu ñuul ndax ñett yi ñoo ëpp ci couleur yi nga xamante ni moom la nitu l'islam yi di utiliser benn bu ci nekk dinañ leen wax ne leen foo leen ko gis ci réew yi am culture kaara kaara ñooñu ñan lañu kooku kan la ci taxawaay kon Cerno Omar euh, tabarakallahu kaaraangoog ci yonent yi kaaraangoog ci lawliyaa yi kaaraangoog ci ñutu sunna yi kaaraangoog ci gaa yu baax yi mënoo jàng histoire ak siira jàng gaa yu baax yi te doo fekk ñoom kaala xoolal Cerno Muntaga xoolal Cerno Seydou Nourou قال للشيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه قال الشيخ ابراهيم ياس رضي الله عنه قال الشيخ الحاج محمد ديان رضي الله عنه الشيخ الحاج احمد برو الشيخ الحاج عمر wala yi ngay dégg yëpp kenn ku ci nekk ci ñoom foo leen fekk rek kaala gaañ seen bopp wala mu nekk seen baat wala mu nekk seen mbagg wala mu nekk seen digg kaala gu ñuul wala gu weex wala gu wert wala beneen couleur kon nga sànni ci kàddu ñu soog a ñëw ci ñaareelu pàcc bi incha allahu taala. waaw jërëjëf sëñ Jigéen leeral nga yóbbu li nga xamante ni euh, bon gars yi jàppee wuñ ko woon noonu ni kaala dañ koy yor nii rek di dox fekk nekk am na lu muy signifié kon jàppale nga gis bu baax yàlla na yàlla fay yàlla dëggal taxawaay bi li nga wax ci kaala rek euh, maanaam sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi ko jiitu ñoom ñëpp daawoon nañ def ay kaala euh, ba ñi topp seen gannaaw tamit di awliya yi wali yi ñoom dañuy kaalawu ndax dañ ne al ulama anbiya donc bu ñuy dañuy même seen culin seen doxin seen donc seen don tamit ci kàll lu leen war la moo tax ñoom wuñ ko caaxaan kenn si ñoom mënul génn fekk yorul kàll deful kàll deful ne loolu moom si ñoom du ko def ko si rek si gis nga lay wala lay mais ku nekk si façon noo koy defee ñii dañ koy teg seen mbagg ñii teg ko seen bopp ñii ñii muuroo ko ku nekk ak euh, li nga lee loolu yëpp ci son yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent moom léppam rek yiw la mu def rek am na lu tax euh, comme ni ko àndee ànd nga si leeral yu am solo maanaam euh, mun nga ko ëmbee say bagage boo demee ba jaaxle boo demee ba li yooyu yëpp ndeysaan dañ kaal sunna la ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais nee nañ sunna mag mag ñi la ñoom ñoo ko teg seen bopp yi moo tax ñoom moo tax xale li si ëpp kaalaam ci ndiggam lay nekk ndax ci la toll ba mu jóge ci ndigg li doog a continuer dem ci bopp bi moo tax ñun xale yu bëri tey nga def kaala léegi léegi léegi nga def kaala suba nga dindi wala lii dafa tollagul ci te ci tegu ci bopp ñoom nag demoon nañ ba toll

naan booy dugg toilette da nga war da war teg dal sa bopp lu mel ni kaala wala mbaxane ndax moom it am na lu muy kon dem na ba bàyyi wala ci biir toilette donc nga xam ne loolu kon lu am njëriñ la euh, lu jara bàyyi xel la tamit kon ni nga ko waxee ndax euh, mag ñi jaar nañ ci yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar na ci mag ñi ñu baax ñëpp jaar nañ ci donc loolu suñu ndono la daal boo xoolee suñu ndono moo tax euh, يدين سنت يدين gërëm delloo la kàddu yu sëñ waaw alhamdulilah rabbil ma ne jërëjëf Thierno Omar ci taaliq boobu bu rafet boobu nga def ci mbirum kaala nga xamante ni ah tabarakallahu am na ci yenn bërëbu diine yoo xamante ni sax daanaka ñëpp ñëppay kaalaw fu mel nii Medina Gounass yaakaar naa ni foofu néew na nga gis fa ku kaalawul te ku kaalawul sax yaa nga sol mbaxana hmm. waaw xam nga alaaji Mamadou Seydou ki yàlla dimbali woon la ci fonk sunna hmm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mbootam la woon fa tabarakallahu du ko defee nag mbokk yi comme indil nañ leen kaala ci yonent yi alayhim salaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxaaba yi ci lawliyaa yi ñi ngi ci xam ñëpp ba ci sunu wali yu jamono jii ak suñu sëriñ si sëriñu jamono jii macha allah wax tamit njëriñu kaala ci mën a mën ceel tëdd mën ci julli mën cee ëmb say bagage mën mën koo takkee say yére tamit pour jéggi ndox wala pour liggéey wala pour sonn ak sew-sew boobu Thierno indi ci ne kaala ci ndigg lay jiitu bala muy dem ci ci bopp sinon tamit coono rek lay indi su ko defee nag euh, l'islam diine symbole la euh, lépp symbole la xam nga du ñu yonent bi waxee nañu euh, bu su su bisu it jotee doo doo doo jaaree ci yoon wii sooy wàññeeku jaaral ci beneen yoon su ko defee dinañ wax ñu bari lañu dafa am pression euh, bu muy dox ci noonu lislaam yi dinañ naa ñoo fees fépp macha allah euh, kon symbole symbole. Hmm. juma symbole imam taxaw bi muy taxaw symbole la yi muy symbole dafa symbolisme loolu. Hmm. mu mel ni nitu yi ak ñi nga xamante ni ñoo am cër ci diine yépp daanaka kaala yi tamit noonu lañu séddalikoo ci biir euh, lislaam mooy euh, boroom xam-xam yi ak wëlu yàlla yi ñi mooy ñi dem ñi fi nekkatul ak ñi nga xamante ni ñooy waa kër Seydina Muhammad sallallahu soo gisee ci lislaam ñetti couleur kaala yi ñoo ci gën a bari mooy noir ak vert ak blanche ñetti couleur yi légui nak euh peut-être ci rew yi nga xamanteni xamuñu culture kaala mën nga gis ku nek di jël kaalaam ba tak mais boudé euh ci ñi xam deug deug culture culture diine culture euh rew l'islam yu ñëk yi da ngay xam ni foo koo gis ma commencé ci ñu bax ñi ndax yonent bi mo wax ni nan leen jital te bañ leen jitu ahlul bayt wa kër Seydina Muhammad sëtu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom li ci ëpp seen couleur bi ñuy kaaloo mooy kaala gu ñuul hmm. waaw am na réew yoo xamante ni koo gis mu sol lu ñuul mu kaa mu kaaloo kaala gu ñuul xamal ni kii sëtu rasulullahi la sallallahu alayhi te loolu mooy li ci ëpp waaw kon ñu ñu bañ a guddal foofu loolu am na ay junj yu bari yu ca nekk ndax dinaa ñëw ci weex bi ak ñuul bi ndax léeg-léeg di gis ñeneen ñu koy boole waaye bi ci topp mooy lislaam su taxawee boroom xam-xam yi ñoo ko taxawal boroom xam-xam yi nag ci biir diine li ci ëpp kaala gu weex la ñuy kaalawoo olamaa wu yépp seetlu leen boroom xam-xam ponkali boroom xam-xam yi ngeen di seetlu seetlu leen leen ci internet xool leen leen ci youtube ponkali ngeen déggal ca Mauritanie ca Yémen ca Maroc ca Tunisie ca Arabie Saoudite ca fépp fu mu mënti doon seen couleur bi nga xamante ni du ñuy takk seen bopp di météo di kaalawu couleur blanche lay doon ndax couleur blanche foo ko gisee ci culture diine mooy borom xam-xam yi ñoom ñoo koy takk léegi nag mu des euh, couleur verte couleur verte mooy couleuru wëlu yàlla yi mooy couleuru tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy toppatoo xabru yi waaw soo demee ci xabru wëlu yu koo fa fekk mu def couleur couleur verte xamal ni ñoom ñooy ñoom ñooy wattu barab ba ñoo koy toppatoo wëlu yàlla yi tamit verte mooy seen couleur ndax couleur vert euh, moom mooy mooy junju euh, mooy junju cëru yàlla mooy junju doole yàlla ndax vert mooy couleur bi ëpp ci kaw suuf vert mooy couleur bi ëpp ci kaw suuf mooy couleur bi dundal waa waa waa suuf verte tamit euh, su ruux yi ruux yi duñ fi jógee dem ca sama borom dellu ci yàlla ci arash ay porte ay porte lu melni ay ay vase ay vase yu vert yu vert moom vase le la ci la ci la yi di nek di xaar até vase qiyamah gis nga so vase ñu janna al janna ci ci premier sens am euh, al ci premier sens am vase euh, Le premier sens Mhm. jardin ta jardin mhm. Mhm. couleur ba ëpp ci jardin moy couleur verte Wa Ok. kon aljana ci bopam couleur ba fa ëpp ci biir aljana moy couleur verte Waouh. kon couleur wex, euh, couleur ñuul mo jur couleur verte couleur verte euh, couleur wex moy borom xam couleur wex mo mo jur couleur verte ci l'islam dégg wax di. donc yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak waa këram mhm. ñoo jur borom xam-xam yi borom xam-xam yi ñoo jur wëli yàlla yi mhm. al ulamaa'u warasatul anbiya mhm. te képp koo